Je déclare ouverte au nom du président de la République la deuxième édition du Salon Jeunesse, Emploi et Mobilité kàddu yi moo ubbi ñaareel bi salon bi ñu jagleel xëyu ndaw yi muy luy ñëwaat ci waxtoom gannaaw ñeenti at ministère de la jeunesse ci uletu ANPEJ mooy organiser la deuxième édition salon pour xale yi mais aussi salon maanaam waxtaan boo xam ne dafay intéressé ndaw ñi d'abord mais aussi ci wàllu emploi waaye aussi ci wàllu dem bitim réew su fekkee ci anam bu baax lañ ko war a defee. salon bi itam dina joxe ay opportunité ngir gone yi bëgg a tukki ñu def ko ci anam yu mucc ayib. tey si salon bi tey am nañu possibilité wane des opportunités qu'offre la migration circulaire maanaam la possibilité ñu am ay collaboration ak ay pays étrangers yoo xam ne dañu soxla main d'œuvre ñu mën a wan ay sénégalais ay jeunes sénégalais naka la ñuy def ba mun a dem ci réew yooyu te du am benn jafe-jafe du am benn difficulté. 23 pour cent ci chiffre yoo xam ni ñu bëri ñu ngi koy laam-laamee waaye bu ñu sañoon mu gën a néew. ñun nag quand ci réew mu sérieux la ñu nekk réew moo xam ne statistiques yi statistiques yoo xam ne au plan mondial lañ ko reconnaître yaa ngi dégg donc loolu lu am solo la 23 pour cent li muy wane mooy que ne am na ay jéego yu am solo yoo xam ne état bi def na ko waaye nag ñun suñu sañoon. dañuy dem ba zéro pour cent taux de chômage le plein emploi loolu amul fenn daanaka mais gëm nañu ne Sénégal incha allah ci at yu ñu jëm ak góorgóorlu bi nga xam ne président Macky Sall mu ngi koy def dinañu am le plein emploi. salon jeunesse emploi et mobilité di ñetti fan yu ñu jag jagleel xëyu ndaw yi jox leen ay buntu yu yokk seen formation waaye itam ñu mën a tukki ci kaaraange donte bu ñu sañoon ñu des ci réew mi tabax ko.